billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah ala kulli xaal eh, mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay eh, di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla defal ñu tawféex defal leen ko eh, ala kulli xaalin mbokk yi tey ñu fas yéene ñëw ci gént gu am solo muy gént ay nen nen nag nekk loo xam ne ci yenn ci bàyyi may ñoo koy def lu ko tàmbalee ci ganaar rek ay ñoom bonaan rek ñeneen ak ñeneen bari na ci xeetu bàyyi ma yi bari dañ koy def mu nekk lu am solo nag am lu muy tegtale ci wàllu gént ndax nen bokk na ci xeetu gént yi nga xam li ëpp dañ koy laaj waaye benn bi nag bi ci ëpp solo muy gént doomu aadama bu nen moom baaxul ndax bari na ñoo xam dañ koy jàmbat dama gént nen bu dee jigéen la nga gént nen yow sa bopp yëgal ne musibam Mbaba Kumba mu ngi lay xaar monsieur Mbaba Kumba bi nag moom mu ngi teg tegtale ni mën ngaa dugg ci sëy boo xam ne mën nga cee am doom joo xam ne dana weddi yàlla wa ilaa doom ju di lay doon doom joo xam ne kenn mënu koo jaarloo ci yoon bu baax moo tax jigéen gént ndeen moom moo gën a bokk ci gént yi gën a bon alaa kulli haalin pour ñu leer laa la ko nit ñu xam am na ñuy wax nag nen yaakaar ju tas la déedéet bu ne caagi ne nàngam dafa bon du ñëpp la am na ci ñum baax am na ci ñum bon ala kulli xaalin loolu it na ko ñenn ñi bàyyi xel euh, su fekkente ne da ngay listixaar lu aju ci wàllu soxna nag nga gént gis ay nen wala gént ku jigéen yor ay nen loolu dañ lay xamal ne sëy bi baax na bu dee ku jigéen ki ku am wërsëg la bi ci desaat tamit ku am yaakaar la koo xam ne yàlla mën na koo xéewalee njaboot incha allahu bi beneen bi ci toppaat mooy nga gént gis ginaar gu nen ba noppi boof ci nen yi loolu baax na ci aji gént ji ndax lu muy tegtale ki gént gént gi danay wane ni yàlla dina ko xéewale soxna soo xam ne dana am ak njaboot te njaboot gi góor mën na cee gën a bari te mën na ëpp njariñ alaa kulli xaalin gént nag hmm, defar nen di ko lekk mooy xeetu omelette alaa xaalin bu dee ci wàllu gént danay tegtale njariñ donte am na fu muy nekkee naqar ak jafe-jafe waaye dinay tegtale njariñ Euh, su fekkee nag ku góor koo xam ne dafa gént yor ay tablet nen yenn yi yàqu yenn yi baax yenn yi toj loolu dana wane ne bu dee góor la góor la goo xam ne ku bari ay soxna lay doon waaye danay tegtale ne soxna yi pour mu téye leen dana jafe kuy taqali kook ay soxna di àndaat ak yeneen soxna lay doon ala kulli xaal loolu it lu mat di bàyyi xel baax baax bu fekkente ne nag koo xam ne danga nekk ci ay xat-xat eh, gént ñu jox la ay nen loolu danay tegtale xat-xat yi nga nekk balaa yàgg mën nga cee génn na tegtal tamit wërsëgu yaatu wu lay dikkal ci jamono jooju bu dee koo xam nag dangay daan ñaan yàlla ak jibo ci wàllu famille boo xam dañoo am jafe nga gént gis ay tablette nañ yu bari ala kulli xaal it loolu it danay ak déggoo mën na am ci diggante famille boobu amoon jafe-jafe wa ak jiboo si sa digganteeg sa soxna wala sa digganteeg say mbokk moo tax ala kulli xaal côté boobu baax na incha allahu rabbi beneen bi ci toppaat mooy gént yor ay nen moom alal la alal la njaboot la wërsëg la jigéen ju baax la ala kulli xaalin beneen bi ci toppaat mooy gént di lekk ay tojitu nen mooy ay xotti nen nga di ko lekk ma baaxul day tegtale nit koo xam ne danay faral di lekk alal nit ñi ci xayru tii bi nafsi mooy danay jël seen alal ci anam boo xam ne daganut moo tax côté boobu tamit baaxul incha allahu rabbi beneen bi ci toppaat gént ginaar di sa biir néeg rawatina ko am soxna wala ko am boroom kër loolu it danay tegtale ni bu doon kuy ñaan ak njaboot yàlla mën na koo jàppandal ci njaboot gi lim ciy bëgg incha allahu rabbi euh, gént gis ay nen yoo xam ne nag dafa am ay couleurs yi différent loolu it danay tegtale ak jaaxle wala bopp bu ëpp ci nit ki mbir moo xam ne da cee nekk incha allahu rabbi ba tey bokk na ci xeetu gént yi tegtale wërsëg. mooy gént gis ay nen yu bari wala ay tablette nen yu bari loolu dana tegtal alal bu doon ku nekk ci projet ay nit dig xaalis nga war cee jot gént lu mel ni balaa yàgg mën nga wax ne li ngay séntu mën nga koo jot beneen bi ci toppaat mooy géntaat eh, di lekk nen bu yàqu gént nekk nen bu yàqu baaxut benn day tegtale ci aji gént ji ala kulli xaalin mu ngi jëfandikoo lu baaxut benn bu dee soxna la dana wane ne soxna su bari ay jafe-jafe la bu dee borom kër la dana wane borom kër ju bari ay fitna ak ay tolof-tolof yoo xam ne dana ko teg njabootam ala kulli xaalin moo tax baaxut incha allahu rabbi eh, beneen bi ci toppaat bu dee ko am da ngay lis lu aju ci wàllu tukki nag eh, nga gént ñu jox la ay tabletu nen loolu it dalay xamal ni bu dee wàllu tukki la tukki bi baax na te tukki la boo xam ne boo ca demee lañ ca bëgg yàlla mën na la cee defar lu fawq sa njor ala kulli xaalin génn di gis ay ginaar nag yenn yi nen yenn yi loolu moom bu dee ko yor ay soxna yu bari la yëgal ni ñenn ñi moom yàlla dina leen xéewale ak ak njaboot waaye ñi ci des moom yëgal ne mën nañoo bañ a am njaboot ci wàllu sëy boobu ala kulli xaalin loolu it lu ma di bàyyi xel incha allahu rabbi kon mbokk yi mën ngeen a jël numéro 78 443 75 27 bu fekkente ne ñi nga xam dañoo aaju wala aju ci wàllu firi gént yi ñu koy baaxoo di waxee.